واغفر لنا ولا واستر مآلنا والتف بنا وابئا في الأولياء الله واغفر لنا ولا وادر مائبنا والتف بنا وابئا في الأولياء الله بنينا أن أتجاوز وإي يا ربنا فما لنا سواك وأنا البار يا الله تجاوز وإي يا رحمن فما bamba neena fi barzaqin ma xaarin kullana wajara wa min kurubin wa xawfin haji allah fi barzaqin ma xaarin wa min kurubin wa xawfin haji allah تختبر بما ليس بخاطرتي ولا تخيم رجاء فيك يا الله لا تختبر بما ليس بخاطرتي ولا تخيم رجاء فيك يا الله واقنا ما من ما يكون سرما اخترته من جميع الخلق يا الله sëriñ Bamba nee na man kaana yarseedu saa xaayin wa yuhliku saa kufrin wa yanasuru man yaxsa koy Allah woo man kaana yarseedu saa xaayin wa yuhliku saa kufrin wa yanasuru man yaxsa koy Allah Bamba nee na mu ëmm dina mas ko yi ndax yaari aayina لجنة الخلد يوم الأسر يا الله محمد المثايل على رقائدنا لجنة الخلد يوم الأسر يا الله ربنا عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن خفوا أولياءه بدين يا الله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن خفوا أولياءه بدين يا الله عليه صلي صل وسلم دائما أبدا ومن خفوا أوليه لدين الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوا أوليه لدين الله كرات لنوب يندم خاص عبد المطلب فاتني بدوم غير كنانم غوغا يلاو magana ko doo mën a moom sam-sam ki ah. duunu yilif makaaki yisri ba doo leen moom fa yallaawu abdul mutalib mer na keroog ba jooy fa ba rus ba dem ca gaaba ga ñaan fay doom fa yallaawu magana yallaahu ah. yallaahu yallaawu yallaawu yaa rabba dal bayti maa ngi dagaan bis bu dugalee ay doom fa yàllaaw la sant ba rey fukkeel ba muy asakaam ah. duñu màgg a màgg ba jot suñu leeree buur yàlla naa ko waxal looy man asal bu ma wër ah. man yàlla mi du ma wër kuy woote yàllaahu abdul mutalib a giñ foofee fa kaa bëgg naa yàlla ah. noo def danaa def noonu yàllaahu buur yàlla dal di bindanteeg moom cëkkun la mu wax danaa la may fukki doom yuy woote yàllaahu ñoo xam ni seen ndey ñoo gën jépp doomi arab te ñoo yilif noofel ak yiram nga yallaahu abdul mutalib bàyyi ko foofee dellu këram réerut keroog nelawul ngir mer fa yallaahu mu tëdd gudd gént garab gu rëy gu sax ci ndigam ah. te peer ba laal asamaaw basar ca yallaahu ñeenti bangaas la am yu gudd gudd ba daj ah. ñeenti xeble ak meññet ma yallaahu yeenam besar na ci biir suuf si ba tas tasaree ah. te ko bu ne am na groupe foofee fa yallaahu mu gis fa taatam waxeetam ñépp taxaw Moussa Muhammadu xeetama ñëpp taxaw yendal te kër ga di ferme ñett ma yallaahu ba bët setee mu xibaar comme labbe fuure juma siwaaw mooy turu abul ijaaru yallaahu mu naa ko laa saaka yaa fiiru ka yaa kanaka yaa imaami Muhammadu Abdallahi yallaahu lu yàlla dem loo ko bañ bañ bañ asal mu dogalul nu boo ko dee jëm ni doo laaw na am jéem du xam doo yàlla xam yàlla xam faamu teeg Seex Bamba wal ku leen xam wallu yàlla bu nu xam kooka yàlla woo ne xam na yàlla den xamul yàlla bu nu xam kooku yàlla wow ku nekk xam yàlla nga faamu teg Seex Bamba war na ku leen xamul yàlla bu nu xam kooku yàlla wow ku nekk لمن قلبي غتاب قلبي يا لما لا وسن لما لا إله إلا الله من النداء ربي أنت سنبي أكرمني عبد الرحمن من لمن قلبي قد قلبي يا لما لا أوصل إن لي دا بنتي سن بي أكرمني أكرمني